94 Walf Sénégal dellu si di leen siyaar di tafal 94 Walf Sénégal xam image bi bu ngeen ko gisee Ndeye Khady Ndiaye nii Adji Sarr nii fii xel xel yaa ngi daw xam xel dafa gaaw waaw xel yaa ngi daw lu baree bare diggante fi ñu jaar lépp rek voilà fi ñu jaar ak li xew ak ba fii ñu agsi tey kii toogi nii kii toogi nii kii sol lu ruus kii sol lu ruus yàlla mën a seetaan nga xam bu ko neexoon lépp daati euh, yemb maanaam lépp rek bu neexoon suñu borom lépp rek daati feeñ lépp nit ñi xamandoo ko waaye yàlla yàkkamtiwul dara waaw bisa ngi ñëw rek sey bokk takk la ba nga dëgër ñu jébbal la ko nga xam ne yàlla moom yàkkamtiwul dara moom du yàkkamti dara day bàyyi rek voilà moo tax kon li nit di def fii ci àdduna na ko xam lépp lu nit di def na ko xam koo xam ne moom yàkkamtiwul dara bu ko neexoon tey coow li li muy bari bari nga xam ne Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye Ousmane Sonko procès attey fii jëm àdduna mel noonu mais suñ borom bu ko neexoon lii sotti na mais da leen di bàyyi rek ngeen di sabablu di teg seen yoon di sabablu kenn ku nekk jaar ci saw yoon rek di sabablu bis ñëw say bokk takk la ba nga dëgër këcc ñu dem jébbal la ko nga xam ne suñu borom yàkkamtu dara bu boobaa nag moom amul xiili xaala amul delluwaat may ma ma delluwaat def lii loolu amul si fi nii jeex na ay jëf moom dakk na waaw jafi àdduna moom jeex na jafi barsaxa des voilà bu boobaa nag lan ngay wax waaw nga xam ne mbugal maara day taali ba keroog saari taxaw wala rek bànneex ba keroog saari taxaw nañu sóor yooyu yëpp lu mat a sóor la bàyyi leen ci xel bu baax a baax a baax a baax xam nga daal moo tax mbir bala muy déclencher rek nañu xool bu baax a baax conséquence yi parce que fi ñu toll ni mbir mi ba mu démarré am na ñu ko fekkee am na ñoo xam ne fekke woon nekk am na ñu ko fekke woon te tey jii ko ngi dem nañ barsàq ndax projet bi affaire bi door a door maanaam euh, bi nga xamee ne maanaam mbir mi ngi door a door am na ñu fi nekkoon ana ñooñu fekke woon ko dem nañ dem nañ te am na ñoo xam ne sax est-ce que dinañ fekkee sax ni projet bi dina jeex ñu fekke ko loolu yëpp lu mat a bàyyi xel la mais day topp rek suñu bakkan xama doomu aadama matul daanaka chaque jour rek mi ngi dugg ci loo xam ne xamu ko chaque jour mi ngi teg ay actes yoo xam ne ni ngir lan ngir àdduna ngir lan ay privilège ngir lan ay matériel ngir lan ay kër yu rafet ngir lan oto yu rafet ngir lan dem tukki gi ñëw loolu daa jar dara loolu nga xam ne daanaka mën naa ne diggantu su ndaw la wala ñu jëm foo xam ne du jeex mukk nag waaw di bàyyi di fi bàyyi foo xam day jeex voilà ñu tànn loola ni la fiy jeex ak fu dul jeex fu la gënal fu dul jeex ngay ngay tippoo mais loolu nag liggéey bu rëy la waaw ndax fi dul jeex nga nekk waaye fii nga koy liggéey nañu soor bu baax a baax a baax projet bi fi mu toll nii wax dëgg fa yàlla bari na ci ñoo xam ne nii de wallaay wax dëgg yàlla projet bu mënoon a jeex ñu bañ a tudd ti projet ñu liggéey ñu liggéey ñu liggéey ñu jubli ci liggéey bokk ndey bokk baay di xàccandoo di dóorandoo yaakaar naa ne wax yàlla loolu mooy li nga xam ne moom la sénégalais yi soxla mais pas fi mu toll nii projet bi ñëpp ci sonn voilà da nga ciy gis ñoo xam ne wallaay lancim daanaka projet bi duñu ñaan sax mu ñëw ndax am na ñoo xam ci la seen i dépense ndax bis boo xam ne yow ñi ci war a liggéeyee liggéey liggéeyewuñ ci aywa fan la ñuy jëlee ab dépense fan la am na ñoo xam ne bala ñoo lekk faaw ñu dem war a jib dépense door koo joxe ñu ma a lekk